dañu nekk ci seen rôle mm-hmm. et je respecte parce que ils sont là pour défendre quand même leur mentor mm-hmm. et ça je respecte mais toujours nee naa leen rek ñuy bàyyi xel ci leen ba am ngañ bi ñuy wax nii nii nii nii sénégalais yëpp nangu nañ ni on en faisait partie mm-hmm. bi Macky sàll demee deuxième tour ak Abdoulaye wadd sénégalais yëpp nangu nañ ni ñëw na ba ci suñu quartier général laaj ñu suñu accompagnement ñu ànd ak moom deuxième tour organiser opération Dogali alors ñëpp Sénégalais yëpp nangu nañ ni bi ma Macky Sall gagné ses élections ba nekk le président de la République lan moo changé de la même manière bi mu consulté Niass ne ko partage du gâteau bi lan laa lay jox defal ko Tanor ak keneen ak keneen noonu la ñu ko defalee ah bon ah mais bien sûr ça loolu wax nañ ko waxati ko mhm. on a eu des propositions venant du président de la République comme lan des postes des privilèges ñu ne ko on ne se battait pas pour des postes et des privilèges on se battait pour une démocratie debout okay. on se battait pour au moins préserver le peu wala bu ñu mënul yokku li nga xamante ni am nañ ko comme ay acquis démocratique ñu ngi delluwaat ci grillage bi on vous a à l'œil laisse-nous jouer notre rôle de sentinelle et il a respecté cela aussi alors dix ans après ci Macky Sall la ñu gisee parrainage. teg ñu ngi ciy teg loxo. ci lañ ko gisee ci Macky Sall la ñu gisee mu ne Karim Wade peut faire mal dinaa fexe ba du ne bokk du ci ay élections. dinaa yàq casier ba du bokk ci élection ci Macky Sall la ñu gisee Khalifa Sall avec le problème de caisse d'avance mu fexe ba ne ko doo bokk ci élection parce que Khalifa était une menace. ci Macky Sall la gisee man may organiser élection quand je veux te man maay tànn mbër yi may bëreel ci Macky Sall dañ ko gisee donc j'en passe yu bare bare bare bari ci régime Macky Sall la gisee mais man Abdou Diouf bi ma gënoon a bi nga xamante ni dama taxaw xeex ko ba empêché ko mu battre campagne ak Kaolack en mille ñetti yoon la ma tëj Abdoulaye Wade pendant 12 ans. Euh, Euh, douze fois la ma arrêté. Macky Sall ci neuf ans j'ai été arrêté et interpellé à plus de treize fois. ci loo xamante ni lan laa def man à chaque fois que ñu interpellé moo wala ñu interpellé benn Guy Marius Sagna mooy dafa génn def li nga xamante ni suñu régime moo ñu ko may parce que n'oublions pas que nous on est euh, sous le régime. de déclaration d'une manifestation mmh. donc quand on met parle d'autorisation ay mënoon nañ bañ a autoriser sérieusement loo xamante ni la constitution Pape Alé dañ ne d'accord am nañ ci droit mhm. ngay taxaw naa mënoon nañ ko bañ a nangu mhm. président jantal la parce que mënoon na bañ a nangu ñeneen ñi manifester à côté mhm. ñun kay ñoo alors que ñoom ñu sañ am sañ sañ am sañ sañu taxaw manifester def ko franchement ok alors euh, je pense que yi moo fi wax yëpp lu ñuy teg loxo la lu ñuy duut baaraam la. waaw man lenn man gis nga d'habitude quand je suis dans un débat ou dans une émission le président de la République qui est le président de tous les Sénégalais moom lay interpellé le président qui nous avait vendu un Sénégal boo xamante ni état de droit yi dañuy fexe ba. sàmm ko wala jëm ko tóoc un Sénégal boo xamante ni dañuy fexe ba suñ démocratie ñu ñoŋal ko wala ñu yëkkati ko mu jëm ci kanam un Sénégal boo xamante ni dañuy respecter le peuple un Sénégal boo xamante ni c'est la patrie avant le parti. d'accord man président boobu laay interpellé ne ko aujourd'hui il est entouré par des gens assoiffés de pouvoir et de privilèges. des gens yoo xamante ni ils ne veulent pas perdre leur privilège ak leur pouvoir ñoom ñoo koy dugal ci yii mais ci côté euh, am na benn ko euh, ci yu bëree bëri yi muy def ñoo ko ciy dugal soo bëggee gagné ay élection vous êtes impopulaire bés boo bàyyee yenn candidats yi dem dinañ la créer élection locale yi askan bi ànduñoo yow bës boo ko organisé dinañu la sanctionné législative yi bës boo ko organisé dinañ la co euh, cohabitation dina am ñoom ñoo ko koy gëmloo je suis et je suis vraiment désolé parce que Macky Sall il n'est pas le président de Benno Bokk Yaakaar ni le président de APR il est le président de tous les Sénégalais te boobu ba léegi seen wax yi li ma ciy dégg mooy ñun parti politique i bu ñu toogee ñun parti politique yi bu ñu waxtaanee ñun parti politique yi bu ñu amee consensus. mais ñooy décidé mais aussi. non Pape Ngagne loolu peuple bi moo jël seen voix jox leen ko. ñun nag loolu aussi nga bàyyi ko xel jàmm. Pape Ngagne nag ñii moom laa bëgg tey. askan wi ñoo ñoo leen jox ñoo leen jox pouvoir boobu. aux Sénégalais. waaw ces politiciens nous on les respecte mais ils ne nous respectent pas nous le peuple. ok ok duñ ñu consulter. Euh, ils ne tiennent pas en compte suñu ay préoccupations. mais mais mais jëluñu li nga xamante ni Assemblée nationale lañ dans tout ça. mais Pape Ngagne tey suñu manifestation bu fële lan lañ fa doon wax. Mhm. non à une troisième candidature. d'accord bu ñu demee bay am xel ñaar. voilà bay dutee ni Macky Sall. en 2024 sañ na. sañ na bokkaat ci ay élections. mais nga xamante ne am na. jërëjëf démocratique merci beaucoup alors loolu sax mooy transition bi te mooy nekk dernière question bi ngeen baal ma mooy li mu wax nii tout à l'heure euh, maître ndax loolu mën nañ ko jàppee recul démocratique bu ñu demee ba ñuy déggandeem wala ñuy njort ne président Macky Sall